ci yow mbokk yi xarit yi ñu ngi amat mbégte ak contentement bu baax baax jàkkaarloo yeen ci site bu mag bi di Lutte Motivation tay nak ñu sét ci kenn ko xamanteni suñu xarit la suñu papa la muy Père kundul ne ci ko ci ki nga xamanteni muy mbeur mi di arfas mom lañ sét ci tay fasiyena waxtaan mom ci li nga xamanteni moy lamb ak actualité dam koy baay mu nuyoo génn bu ko defé ñu woy li nga xamanteni moy waxtaan bi Père ma ngi lay ziar. ma ngi lay delloo ziar di nuyu mbokk adina yi di nuyu fi ma bokk muy Jolof dëkk bu ñuy wax ngiit fa la sama baay cosaanoo ma nekk jolof jolof ak doomu lébu ñaar licence yëpp laa bokk su ma doon tubaab dama xam métis laa kon maa ngi leen di sant di leen ci ñëw bi ngeen ñëw ak yëg bi ngeen am ci man quoi jërëjëf. yaakaar naa ne ci ngénte bi nga jóge waaw sama jabar laa doon ngénte eh, sama sëdd muy doomu Ada Fass ma teewel ko nit ñi teewel ko ah, jàngale ci àddina nag loo xam ne leer ko ne lef yëfi xale waratu ko parce que ku dem ba indi bant war nga xoolaat bu baax fi ngay teg sa tànk parce que doom nawle la te boo xasee ba jur moomatoo ko ñun ñëpp ko bokk surtout ñu tuddee ko maam Xadi jot kon maam xadi jotu xadi jotu yëpp kookoy seen maam. mooy seen mooy seen turandoo. aada borom kersa la. bu juumee day nangu na juum na. kon ku neex a àndal la. que déggal na mu. xam ne man papam laa. Ah, waaw ngént li mu ngént nag. yàlla na ko yàlla may ay ndaminam. indi nu jikkoy gor indi nu jikkoy mbokk indi nu jikkoy yaay parce que kooku la ko tuddee ana nag njumte yim laan def yépp dana ko bàyyi ko toog na ay xaritam ba ci entraîneur bi nekk Espagne waxtaan nañu man ak moom nee na ma père lépp loo wax aada dëgg la yow doo jay aada moo tax ma bëgg la sopp kon jamais que je dis naa dund dund tricherie xalaatuma ko. tey man yëg-yëg nga am. yëg parce que dafa fu mu jaaroon mu lëndëm lool ma ne ko dana leer leer na tey parce que kuy ngénte ñëpp fekk si la ay mag fekk si la ay jëwriñ fekk si la war nga xam ne du loolu liggéey lu mu jëfee la te ku jëfee lu baax yàlla may la lu baax ku jëfee savant tamit bu la ko yàlla fayee bul mer yaa ko jëfee ko boo demee am doom sa taxawaay la la war a mën a nekk. grand yëfi grand la léegi aada doontul xale yi mag la léegi il doit gérer sa son ak aveniru doomam ak aveniru jabaram ak aveniru yaayam kon. te tànk yooyu nga xam ne moom laa yónn xool ko mu ko toppee rek am dara te yàlla na ko yàlla jàppale mu am dara mën a dimbale ni ma ko bëggee mu defee ko noonu xale la boo xam ne dëggal na ma quoi bu may wax ak moom sax day sëgg ndax sama kersa. kon aada bu ñuy gis ci làmb aada di yëngal aada di. di di di di di di di di ada di daw di dugg fu ne ak ada bi nga xamantene ne lamb ada làmb ak ada bu nekk ci lan euh, différence bi moy ñun luñu xass ba ŋaang bu ko topé rek am ndam te lolu moy dundam fi ñu tollu teg na boppam ku war dem jël roi des arènes parce que ñi nga xam ñoo nekkon ay morom aada dépassé na leen loolu nag yàlla koy def ci nit ak sa yarute ak sa bëggal nit ñi loolu lay may. léegi booy toog critique yi di ñëw ci mbër mi di Ada Fass da nga nekk ak moom ay mbër mi day dem ci boîte yeeg fu ne mu dugg fa ak yooyu noonu du am plan de carrière. yooyu nan la lay def en tant que coach en tant que ci xale day am fuuga jeunesse moo ko jàppoon te xam na ne fuuga jeunesse bi amulu ko intérêt kon ni ko amal intérêt mu muy làmb te mu mën cee jëlee loo xam ne ëllëg bu mën naa toog ay ate at du ko am kon loo foofu lañ jub si ak moom te bu soobee yàlla la ko am. Alors, parmi ses amis ñi ko jege ñëpp kenn laa ci gis tànnal ko suma bopp gisal ko sama bopp astafurla muy ñaar muy booy abakara ak xaadim ak booy bi nekk rëbës boo yooyu daal xam naa ne bëgg nañu aada trop trop trop trop ñi nga xam ne nag àndandoo moo tax ñu ànd ak aada di dugg moom ci ay boîte di def ak moom ci ay kërëb kërëb pour wane seen bopp kën a ànd nañoo aada ak nangam nangam ñooñu su ma soñoon aada da leen tekki suuf parce que tey si tey ànd boobu bu brisé carrière am dootuñ ko xam dañuy seeti keneen moom na seet avenir am ak avenir u jabaram ak avenir u doomam sopp bi ñu ko sopp nag ñun ñoo ko yor mënuñu koo bañ mais bu juumee ñu wax ko dëgg. succès la ko mbër mi war a téye. succès sur du jàmm borom. ñu ko fi ëppoon trop muy ñoom Lac Rose ñoom Mbaye Mbaye Mbaye Mbaye Mbaye Diouf moom ñoom xam nga. Bruce Lee ak ñeneen ak ñeneen ñu ak ñoom Forza ñoo ëppoon coow aada te bañ ciy tollu ah. seen carrière dañoo dem ba jëm mag walla sax ay xale lañu jigéen a lay siiwal jigéen a lay yàq parce que góor góor ni yow bu lay wax du du nob la dëgg lay dem ak yow mais jigéen moom da lay wan la carrément nob naa la ak mu jaral ko xam nga. jaajaan ngeen dem jaajaan njaay te jaajaan njaay lay gaañ la. parce que loo ci jëlee dara doo ci am dara. nañ góorgóorlu. aadana góorgóorlu. fii la juddoo fii la yoroo fii la cosaanoo. ñu ngi xam ne ñoom la foogoon doon temps carrière na xam na ñooñu ñooy soppeem. en général bu booy yu xuloog aada rek parce que aada juum mais booy yi duñ ko bañ parce que dañ ko bëgg kon mu viser carrière am ci bonne conduite laa gis quoi. mbër war na di raar mu mag. war na di euh, non non c'est-à-dire dafa am condition yi tax mu raar xam nga boo jógee ci déception. déception bi mooy lan nga am problème coow xam nga day joué ci nit ki aussi sa jabar nekk en état de grossesse ci sa mentalité dootul mën a régler parce que toujours yaa ngi xalaat loolu rek mais du du rare écrit ci kanam tuuti da ko gis mu ñëw commencé entraîner parce que li li am li am ni weesu day weesu kon li ci kanamam lay songu te bu soobee yàlla. Euh, la may ragal est-ce que du génn dem. guy gi guy gi guy duñ ko ba duñ ko baal duñ ko may dara. <laughs> waaye mbër mu mbër mu mbër la. waaw Yékini ne ko gënoon a garaaw fii ku fi mbër. tey takk ngem. Yékini Yékini mooy sa mag ci xam-xamu bëre bu ko weesoo Tafa Gueye ni ñuy daanee mbër mooy aar bi gën a rafet ci mbër te ñoom loolu la ñu appliqué ba bañ jeexal seen carrière dama leen di ñaanal ñoom yàlla na yàlla musal ci cat musal leen ci làmmiñ yàlla may leen màggaay bu ñu màggat ba raw Robert Diouf ay at ci fan wu gudd loolu laa leen di ñaanal ko am guy gi nekk na mbër moo xamante ni booy yi gën a ës nekkoon ci seen yoon da leen daan ku si mel ki nga xamante ni mooy Ama bale ku si mel ki nga xamante ni mooy Siteu ak yeneen mbër yoo xamante ni mu leen lim ni mu fi jógee bërëb guy gi euh, xam nga xale ak mag ñooy bëre temps bi muy bëre ñoom Siteu ak ñoom Ama Baldé temps boobu aada xale bu loolu màggaayam demewul noonu. mais guy gi tamit mooy loolu. waaw loolu da nga may <laughs> gi magee na aada at bëri na wala bëriwul aada il a que vingt cinq ans guy gi ñaata mu ngi ci trente cinq ans wala lu ko ëpp. combat sa différence d'âge dina ci jouer. Euh, différence d'âge day que lu guy gi na bëri. gëj na bëre te defe naa ci defet la jóge nekkoon wala bu daanee aussi tamit gëj na bëre day jouer parce que bu fekkee ne continuewul ay entraînement am day am diisaay day am yéexaay te xale-xale la buy ñëw doo ko yëg bata mu làmbee bata ba danga ko làmbee daj ko rek ci gay jéem a def effort mais bu la am na fu mu lay egg rek du baax ñom ñaar ñep sama doom lañu nañ dem entraîné parce que ku adina bëgg sénégal bëgg la surtout ma ngay doomu sénégal so fonké li nga am rek da ngay gën am raw mais do am de arrière te ñom ñam ñom ñaar ñep am nañu avenir raw parce que lu tax ma am nañu avenir seen lamb day neex parce que ambiance bi ci am ak fo bi ci am ak re guy gi moom foo ko fekk day ree rek. moi je l'ai estimé dama ko bëgg quoi parce que bëgg naa koy ree. kuy bëgg naa ko. kuy ree yorewul xol bu bon. te bu looloon ci guy gi guy gi day ree rek yàlla na ko yàlla taxaw ba li bëgg ci njabootam yàlla defal ko ko. di ko bëraloo moom Ada Fass si diggante ak guy gi moom Ada euh, danaa ko bëraloo. parce que amna champion yo xam ay lour lañu té dañuy ñëw pour jàppale ala té xam-xam bi nga xam amna ko té yalla jox mako ma diko seddo séddoo ak aada damay ñaan ba yàlla bu ñu tolloo foofu la yalla daan may muy ndam bi ma daan jox yalla mako delo wat encore ci barke yooyu ma daan guy bu la bàyyi ak bëre bi da euh, après euh, man ngay waxal dama def takki médaille ba taay Khalifa Diouf champion d'Afrique ñoo bokkoon salle man moom Mangasa Chico Mansour Ly ak yi tant d'autres yoo xam ne tey actuellement ay ay mag lañu kon lu jëm ci wàllu songo ak daane defe naa ñun ci lañu juddoo ci lañu yaroo xale liñ ciy doog a rek. kon danaa fi ñëw. macha mais xamul woon ne dama koy bett. kii tamit di kii tamit sama jalbaal njool sama gaay yi voilà. Euh, nga làmb kon ne am naa ci xam-xam rek danga amul bés booy daanoo bés booy daanoo rek ñàkk xam-xam boobu kon du ñu wax ñun ne dañuy daan guy gi mais dañ suñu làmbaatoo ba jot daj ko ah lu ñu yàlla jox lu ñu jël ko. mais gis nañ ci côté xeex. aada ñu si bëri nee neen mën na bëre lool champion lan daanaan la mais ci côté xeex dafa xaw a des lan mooy problème bi. xam nga xeexu làmb euh, du loolu la làmb soxla làmb daan la xam daan la làmb xam kon bëre bi. benn ñaar la benn ñaar dem boo benn boo ne boo boo defee gauche droite non da war a tibbi parce que warul gaaw est-ce que dégg nga baax na ma affaire bi du dóorante ko peñ tël tël tël non non non non benn ñaar la écrit face benn benn ñaar la lu tuddee boppam parce que bu la dóoree dóoraat xamal day ñëw waaw ah waay song mooy mooy jeexal bële di gërëm Birame yaay un homme sage un homme saint nit ku bëgg ku gëm dëgg sama xarit di ñaanal booy bambara yàlla nu ko yàlla xalaal jànn yàlla na suuf sedd ci seen kaw àddina du dara ngelaw la rek bu yàlla poussé ngelawam ku war a dem da ngay dem ñi war a des des yàlla bi mu poussé seen ngelaw na dañoo dem ñu ñu fi des yàlla nañu fi yàlla bàyyi ba ci kanam. ci barke yonent bi. bëre guy gi yomb waaye ngeen am adversaire bu mel ni guy. Oh. guy gi ñi koy teg pression ñun bokkuñ ci parce que dañoo bëreeg façon bu nekk. mosu xanaa xamoon Tapha Mbeur moo dàq bëre guy gi. Tapha Mbeur waaw bu bu bu dëggalooy boppam am ful ak fayda mu mënu ko. parce que Pape Mbaye mi koy yore. teg c'est un grand technicien. mais ba ñu dajee man ak moom dama koy fàttali quoi dama ko waxoon dama ne ko damay dagg sa caay mu ne ma jël waaye grand mu ne ko caay caay ji laay dagg dama bëgg a ñor gi deñ ba janax ji jaar fii Tafa Gueye ne ma ah waaw mais père mu naa ak waay bul dagg caay tuwee jàmbur loolu yëpp ci ambiance lamb la quoi mbër moo gis muy muy dem Euh, euh, comment dirais-je euh, jàkkaarloo ak moromam. mais waxtaanu mbër moo war am ci diggante foog rek. ak mbalagante mais mbër warul mer. mer ngay xuloo fii kër ci kër non xoolal bu ma laal bu ma i ah non. mais yow foo jaar mbër laal la. parce que da ngay bëri moom kon am na ci show yoo xam ne jaru ko. show yi nag doon kaf ak ree na doon li mbër yi entraîneur yi ak mbër yi. kontaan ci sa communication yow ak sa adversaire du don du doon hen du don ennemi parce que yeen ñep ku ci nek ëllëg da ngay bàyyi beur te ku ci nek mën nga tuddé sa morom dom kon lamb defé euh, wuñu ko affaireu ennemi affaireu aar la na solo mais situation dafa mbeur comme tuddu nga ko légui nan nga ko gisé ci lamb euh mu gëm bopam gëm na bopam sax mais na gëna gëm bopam si nga affaire comédie yi muy def nii ay galak ay kërëb kërëb li jaay affaire star làmb du affaire star làmb vérité la boo ko gëmee mu gëm la boo ko gëmul mu dem bàyyi la nag bala nga cee war a mën a jeexal yàlla na yàlla may dara nga mën a toog mais foofu amul njëriñ waaw ñu koy def ñëpp moo leen tareel mais gis nañ ñoo ngi am combat moom ba tey am combat parce que daa fu ñu ko féetale noonu ko bu demee noonu. comme ñu ne àndul ak gouvernement beeg yooyu loolu moo tax combat am di yéex ak yooyu. xam nga dafa am loo xam ne bu ko promoteur xalaatee sax def ko ci wàll wii. erreur parce que président bi daf fi jógee ku ci nekk am nga choix. ku ci nekk am nga koo bëgg a àndal ko am na ko xam ne da koy gëm. bu la gëmee nag nga gëm ko mais da koy gëm. moom dafa tànn soo na gëmul président bi li muy li muy def noonu du cadre du cadre sportif am ay nerveux ay affaires yooyu amul sens li am sens mooy lañ ñu yoreel suñu senegal yërëm ñu ñun parce que toll nañ foo xam ne dañ ñu war yërëm da ngay dem ba xam ne am nga à l'âge vingt cinquante ans trente ans ou quarante ans munoo am kër ba pare am ay doom dëkk bi gën di metti nañu yërëm ñun moo gën yi muy def nii. Adama 12 ans la def mais day jeexal dem keneen day ñëw. lim nga xam ne côté sociale bu ko defalee mbër yi aussi dafa wàccook mbër yi rek mais yoon la pour mu defal ko mbër. macha allah fu may jeexal ak mooy ci coowal Gris Bordeaux yaakaar naa ne dégg ko ah, mu demoon di entraîner fee ci réewum France ba am loo xamante ni euh, dog faa dal ñu tuumaal ko. waxal ko ne ko moo jël ay parfum fi nga xamante ni foofu la nekkoon yooyu coow en tant que doomu Fass en tant que coach en tant que porteur de voix nan nga ko dundee. xam nga man dama nekk homme de principe. du ma wax mukk lu ma xamalul nit ki. loolu xawma ko ci jukkoom kon du ma ci sori. xam naa daal il ma respecte je le respecte loolu daal xam naa ko mais le reste moom. jéew ma dugg ci ay domaine am quoi. que suma doom la suma rakk la suma jarbaat la. bu fekkee na lu mu def la. waru ko def. te xam naa ne du lu lu mu def. nit man nga am ku la taxal wala nga am koo xam ne bugg la dugal la ci star boo xam ne day indi coow moo tax star toujours rek nay moytu parce que lu ko dëgg lu ko pëtaxal dafay bëri bu fekkee ne bàyyi nañ ko yàlla na ko mais ñu ko. jàppuñu ko kon yooyu xam nga. ay détails la yoo xam ne doo ci mën a wax loo xamul. bu fekkee ne lu mu def la. yàlla bu mu ko defati bu fekkee ne dañ ko ko jiiñ ki ko jiiñ yàlla na ko yàlla alak ko yàq doomu jàmbur baaxul. gis nañ ko mu def vingt cinq vingt cinq ans de carrière mosu ñu ko dégg ci coow mosu ñu koo dégg ci problème yàgg na satisfaire yenn amateurs yi kon tool yi bu amee est-ce que tamit du am loo xamante ne tey Sénégal deme demee noonu Sénégal bëri nañ coow Sénégal xas sa mbokkam sénégalais sax moo gën nga xam nga xas sa mbokkam étranger kon li ko dal ni dana ko yee parce que mosu dal ci carrière am na gëm boppam dolli fulla ci boppam te wàññi wax ji gars yi mën nañ la dugal ci biir wax potaxal la bu yàggee ñu teg la dof parce que ñoom dañuy noppi yow ngay ndal ndal amul président amul ñàkk président bu sa coow bëre rek nga nga commencé amee noonu parce que la ngay wax am na ñu muy neex am na ñu muy naqari ko loolu nañ gàttal waxam. situation yéen euh, yéen ban jàng lañ ci war a mën am yenn mbër yi. Euh, yenn mbër yi comme lan ban situation. buñ génnee. dem à l'extérieur di préparer wu mm, am bu fekkee am nañ conditions yi nga xamante ne war nañ mën a jël hôtel moo gën ñu dem di toog kër jàmbur ba yen yi di leen xam nga toog kër jàmbur boo toogee sa kër mbokk sa kër nga toog boo toogee kër xarit sa kër nga toog ni xarit bi jàppalee bo jàpp bopp jàpp boppam ba fat la ci këram boole na la ci boppam kon tu dois être sérieux la nga xam ne moom du ko jëfee bu ko jëfee ci kanamam même boo koy jëfee sax waroo ko jëfee ci kanamam parce que aussi bul nangu mu rëy mu rëy ci sa kaw te nit nit rek la képp daal koo xam ne yaa ngi dem étranger di entraîné nga ne maa ngi dem entraîné ji na la entraînement yóbbu d'accord tu dois avoir des contacts avec des gens mais nag bu fekkee ne contact bi nekkul contact boo xam ne légal na nga effacé wu kon da lay na ne loolu def lu nekk rek lu yàgg da nga da ngay ñibbisi te ci médias yi dañuy wax de gauche à droite kon booy dem pour entraîner da ngay dem pour entraîner entraînement lekk ba suur dem entraînement ñëw tëdd nelaw